waa maa ngi leen di fay euh, yàlla def na daaw ñoo fi daje woon ren yàlla defar ñu daje fa ñu daje fii New York euh, kon bu ñu taxawaatee fii war nañu mën a wax li ñu fi tax taxaw nag mooy Sénégal dafa mel ni ñu ngi taxaw tey ci traité waalu Sénégal di wax di xaar doon teeru sunu président like or no like président tous les africains yi nit ku tedd ki nit ku yaru ki nit ku bëgg Sénégal ki nit ki nga xamante ne ni bëgg na lépp loo xam ne tey jii ñu di ko gis fii bëgg na mu am happen Sénégal mooy président Macky Sall moom moo tax ñu ñëw fii tey pour Sénégal ñoŋ lii ma jàkkaarloo ni yëpp di ay building ay taawo président Macky Sall bu ñoon mu am Sénégal ba ñu taxawaalu mu nekk nag mbir mu rëy moo xam ne chaque année lañ koy def waaye dama ne salaamaaleykum parti bi tas parti bi nu yàq parti bi yàq boppam tas di ma sot salaamaaleykum laa def ñu may sot ay góor lu mat 30 góor di ma sot man kenn dañ ma doon dóor di ma sotte ay ndox dañ ñàkk jom dañ ñàkk jom man Coura maki mii nga xam ne benn góor rek su ma dooree korosé normalement war naa war naa yànq ñu ragal seen yaay yi liggéeyuñu nday ju liggéey doo taxaw téeméeri góor di songu benn jigéen di ko këpp ndox di ko di ko ne danga koy dóor mais nag nañu doxal ñu xool kaay ma ñi ngi doxal na ginnaaw président Macky Sall ba yaatoo noonu la sama ginnaaw gi yaatoo waaye danaa leen dóor ba Sénégal yëpp xam ni dóor naa leen fii ci Amérique danaa leen dóor ba Sénégal yëpp danaa ko maye laay xam nga booy porte plainte dafa am koo xam ni moom ngay porte plainte mais téeméeri góor wër la ñàkk jom seen yaay yi liggéeyuñu seen kër papa yi ñu war benn jigéen bu day ni man mu ndaw mi mu tuuti mi ñu di ma sot dañ ñàkk jom seen baay tunkara jabar ji awa ndaw awa ndaw e kan moo naan rus ma awa ndaw mooy ndayam jëkkëram ji yaayu tunkara di kon bo e e e fii Sénégal lu ne wax lu ne dégg nañ ko fii barki de mu ngeen dégg ko fi saaga yàlla ngeen teg ko tegal leen ma lii awa ndaw laa bëgg mu ñëw góor ñii di ma sot duñu dara na awa ndaw ñëw jàkkaarloo man jéegu ruux bi jeeg bi nga xamante ne ni sàcc yi nekk New York moom la ñu àndal mooy seen gel Tunkara mooy waaye dañ koy gën rek senegal yëpp wuy si nañ Macky mais Tunkara woote Tunkara moo créé lii yëpp dama yàgg ak yow dama yàgg ak Tunkara mu sàcc feel biir Amérique amatul dara dunitul dara dunitul dara waaye nag c'est normal fii Amérique la c'est normal ñu ñu ñu def sécurité bi mu wóor fii ñi fi nekk duñu ay nitu caaxaan ñu ñu fi nekk ñëpp ay nitu valeur lañu. d'accord demee ñu ngi xaar président Macky Sall fii ci Nations Unies. Mhm. ñu euh, am ci biir at ban comme ni ko doon defee rek président Macky Sall li mu wax a gën lu mu waxut. lu mu wax rek dafa war. dafa leer. suba dina mel ni discours yim fi yim fi bàyyi woon daaw ak daawaati jéeg. waaw waaw. li gën ci Afrique rek lay wax waxuma Sénégal rek de Afrique la Macky Sall di waxal. waaw ku ku ñu bëgg a ngi dem. ku yéene sénégalais yaa ngi dem. mi ngi wàcc bopp réew mi. mais nag dinañu ko waxaat. fii la taxoon waxu ko. nation jeunique bii di ñëw di nga ma poser question du mat ñaari weer sénégalais ay jooy Macky Sall